c'est grave mais euh, tonton ñu baal loolu ñu ñëwee ci ba tey euh, Cour des comptes Cour des comptes euh, tonton est-ce que amul quand même part de responsabilité ci buñ buñ ko mënee tudd xam nu ñu ko waxee nag ci olof impunité impunité financière bi am si ñi nga xam ne ñoom la ñu jox. Euh, euh, budget euh, lu ñu war a doxalee en tout cas réew mi. Hmm. bu ñu xalaatee ne cour des comptes boobu déjà quand parle de cour ay magistrats hmm. ñoo fa nekk ay juges. Oh. ñoom ñu am possibilité ñu am à travers seen chambre de discipline financière boobu. Oh. ñu am possibilité. sanctionner hmm. képp koo xam ne ni da nga jalgati. def na ko su dul noonu sans xaar Macky Sall saisir leen. waaw te ñoom duñ ko def. déet en ah, kay en ah, kay dañu loi dafa wax ni dañuy rendre public rapport bi. waaw ba pare jox benn président. jox assemblée nationale président. Mm. waaw mais chambre de dispute bari ki dem boo Ndiaye rek ñii nekkoon ARTP. ARTP mooy mooy kii xaw ma nu ñaar euh, mooy ñaar kii. Euh, du ma jàpp si ndongo jaw ka ca des gis nga leen mm. traduire nañ ca gumba la traduire nañ ca. condamné ay trente millions quarante millions. Mm. mais liñ leen condamné par rapport à ce qu'ils ont fait c'est du tout. mais il effectivement. ils euh, traduisent des gens devant cette euh, chambre la di leen mais c'est des sanctions financières. waaw mënul doon sanction pénale. voilà mais mais rek dañ lay kii rek. mais même sanction financière ba c'est important sax. waaw ah, c'est important il le faut. Ah, rien ne dit non non rien ne te dit que ñii du ci am ñoo xam dañ lay yóbbu. waaw ah, mais que que ñeneen kay kay mooy mooy mooy teg kuddam. Hmm? na peut-être non non kooku moom moom ko si ñii. Hmm. la cour des comptes. ah je crois pas ah, ci ci perspective am la bokk. Mhm. war naa man a def na ko def na ko yoon yoon. Mhm. ñoo xam ni traduire na devant a cour. Mhm. président de la république moom mi yor rapport moo yilif réew mépp moom itam mën naa seet bu fekkee na rapport bi kii. ma ne mën na koo jox juridiction yi. waaw seetal leen ma di. waaw mais xam nga moom nag kom comme ni ñu waxoon sànq rek. moom hmm. loolu euh, du du du du mbaaxam. léegi euh, ba ca des euh, tonton temps yaa ngi dégg ñu ñu bëri maa ngi dégg ñu naan ñu ñu ñu si société civile bi. ñuy sàkku euh, ci président Macky Sall ak euh, gouvernement am comme falaat nañ ko mu def kam déclaration de patrimoine xam nga mu njëkk ba sax euh, ñu bëri ñu ko woon bii nii tamit kasaali ko noonu ban jàngat nga ci am. même jàngat. maa tey bi. ma tey te nit il ne se il ne il ne respecte il ne respecte pas sa parole. parce que moo ni moo njëkk a def mu ñëwee naa def déclaration de patrimoine. ça mm-hmm. n'existe pas. Mm-hmm. mu def déclaration de patrimoine def en tant que candidat mu def déclaration de c'est il était obligé ñu naan kat dañuy exagérer sax bref def na xaw moom nangam milliard c'est pas mon problème def na. Mm-hmm. mais dañu ne la loi dit encore. Mm-hmm. le président de la République nouvellement élu. Mm-hmm. fait sa déclaration de patrimoine bañ ko élire ba tey ak ñaata la ah. <laughs> def na fi léegi léegi def mi si ay dix mois. genre il n'a pas fait sa déclaration. il piétine la loi. kii laa fee wootee allègrement allègrement mhm. mais ndaka moo koy def waxantuma ak ñi ci dëgg la su ma dégg bu baax li nga wax ba léegi mooy kon ñun président Macky Sall dafa dëkkee di dafa dëkkee di ñu nax naxunu matoon sénégal nañoo jéggal ah mhm. dëgg dëgg buñ matoon liñ doon mhm. xam sunu bopp xam li nu war Macky Sall ñu seet la nu waxoon ak lam def duñ ko falaat mukk ci àddina mais tonton bu ñu ko falaatu tamit xam nga Sénégal yi tamit xëy na foofu la ñu amoon problème waaw mooy bu ñu falaatul Macky Sall kuñ fiy falaat parce que ñu nekk en face nii tamit waaw dama ne ñi mu jàkkaar loolu aussi tanewul kenn ah kan tanewul euh, euh, euh, ah ñi ñi ne en face waaye dem brigul ma la da ngaa bëgg a wax ni Sénégalais dañ koo fal voilà loola ça me permet Sénégal boo waxee Sénégal kenn baaxut nangam nangam c'est koo fi indi c'est pareil loolu loolu mooy nañ fi bàyyi ñi ñu nekk ci liñ nekk mm-hmm. loolu ay waxi kasaw kasaw la mm-hmm. fukki million ak juróom benn mm-hmm. mënoo kenn ku baax ku mën a yor Sénégal. waaw ah, loolu dëgg la moom mais mais xam nga tonton boo gisee ne kaa eh, bi jox la ñaari exemple boo gisee par exemple. am na ci ku ci ne ku ñoom koo xam ne xaw-xaw ma ci moom ay nee nañu nag yow Sonko presque yow Sonko ngay àndal Sonko ngay defaan kay Sonko euh, yaa ko bindal ay. textes ñu bëri nee nañu. Sonko que yow Sonko nga àndal. te Sonko yaa ngi bindal ay discours am. muy ñaari affaire muy ñetteel bi. Euh. mooy euh, presque yow yaay euh, kii moom daal yaay mentorom yaa koy soufflé kii di ko jox ay quelques clés ci politique ak yooyu. waaw man moo di ñëw. Hmm. aw ma sañ-sañu ànd ak. su bu la neexee. Ah, ma neexee. waaw maa koy bindal nag moom. Hmm. yow buñ la ko waroo ko gëm. Hmm. mais moom moo ma dàq jàng. mais Sonko. Euh, procédure fiscale lu jëm ci fiscalité wala dara dara ump ko ci. lu jëm ci procédure budgétaire dara ump ko ci. mais politiquement la ñuy wax ñun politiquement. de politiquement de dañuy wax rek euh, bindal. Mm. dama ne euh, Sonko. day Sénégal lu leen loolu kenn waxu ko sax da ngay wax rek. non non non série tonton lañ ko wax di. mais lu may bindal tonton Sonko lu ma koy bindal. moom discours politique am yeeg yooyu. d' abord d' abord d' abord d' abord discours politique. il faut ma bokk son entourage. moi je ne suis pas membre de PASTEF. mais nga bokk ci entourage boobu déglu rek je ne suis pas dans l' entourage immédiat. mais sax ñëw déglul ñëwër Sonko ñëwër Sonko. borom yi xam-xam rek lañu. mais yow ban ban rôle nga ci am yow Sonko. ban rôle laa ci am seen relation lan la c'est un garçon en qui on jusqu'à preuve du contraire on peut encore faire confiance. Hmm, man ba ba may gis leneen. Ah. gëm naa ni xale bi xale bu jub la xale bu am xam-xam la xale bu ñeme li muy def. moom nga gën a wóolu Idrissa Seck dama ne dama ne du ma tudd Samba du ma ne ma dama lay wax ni. Hmm. Sonko xale la boo xam ne bi man ci li ma xam ci moom. Hmm. ku ku yaakaar la. parce que man xam naa ci moom njub li ma xam ci moom. xam naa ci moom njub. xam li mu xam na xam na xam-xam bu wér ñu naan expérience i raconte des histoires am na xam-xam bu wér dégg nga li ma la ñeme na li mu ne. mais kon keroog ba ñu la ni bañ may dàq deux cent mille francs nekk sama compte genn kër laa am bi may fay li ma tabaxee bi ma ko matagul six mois bi muy jeex kayit yee ngi man ku ma ko laaj ma jox la gannaaw loolu ku ma xamal geneen kër jëlal ku ma xamal beneen terrain jël déglu rek déglu rek waaye déglu ma wax la loolu yomb na nañ dem kadas nañ dem demal du lu jël d'accord la déglul hmm. dama am sama ñaari ancien la hmm. ñu nekk inspecteur de impôts ma woo leen hmm. laaj leen de man de Sonko nee ma nee na ma nangu loolu di jafe ne Sénégalais ñu ne ma monsieur daal li la man a wax ku xam liggéeyam la ku ko nangoo def la ku gore la te lu léwul bugg mais fréquenté mooy lan. mooy fréquenté agendaam fréquenté bu ñëw sa kër wala ngeen naan ataaya mais mais dama ne c'est un garçon on a d'excellentes relations. moo doon tonton gars yi dal tuumaal ne ah. ne yow ne yow euh, opposant encagoulé nga. waaw am na suñu ne eh. Modou Niang dafa rancunier. Eh, Modou Niang dafa eh, Sénégal nga lay dégg kat. Ah, Sénégal nga lay dégg. parce que nee nañu kii. nee nañu merkat nga da ngaa mere ñoom da ngaa mere Macky Sall Euh, parce que xëy na moo la xaw a ba ma tuuti. ba ma xoxotal tal la ci of nag bi ba nga ba nga démissionné. ah très bien. Ah. xam nga sénégalais dañuy wax lu ñu xamul. Ah. man nekk naa of nag ñeenti at Macky Sall xamu ah, ñeenti weer. Hmm. nekk naa fa ñeenti ñeenti weer xamu ko. Hmm. bi ñu nomee kii douze membres yi moo leen di nommé. Hmm. ñi ci des moom moo leen di nommé moom moom di liggéey ak ñoom. ca booba la waxtaan ak nit ne commandé damay seet ñu ma ñu ne ko ku mel ni Modou Niang de boo waxtaan ak moom ñool mm-hmm. mu woo ma booba lañ soog a gisee nu waxtaan ma liir euh, euh, loi bi defar of nag nangam nangam mu won ma ay projet mag yëpp ma ko yow yaakaar naa ne mën nañu liggéey mm-hmm. mu def ma conseil chargé de l'éducation et porte-parole mm-hmm. loola lu ca yoonu Macky Sall doon ba ma fa toogee ba xam ni ña ngi koy indil ay jafe-jafe waaw man bu lu ma gën a toog mu indi jafe bu ma bindee ñu mer te mënumaa bañ a bind. Mm. mais ma ma génn bàyyi ko. Mm. la ma defal fa ma jaar moom. du ma mm. toog di ko yàqal. d'accord noonu loolu def loolu nit ñi ñeme nañ koo kii. waaw waaw loolu kii mais mais de tonton xam nga. Euh, waxi Sonko yooyu bay waxi kasaw kasaloo nag kat. non non mais mais Sénégal ñoo la koy wax. ban Sénégal. man maa la ko jottali xam na gars yi dañ laa. waaw xam na gars yi duñ la seen si mbedd beeg yooyu. comme nag comme dañu ñëw fii man ma déggul ka man xaaral waaw li nga ne dama contrat dama nangam waaw nee nee nañu nee nañu da nga xaw a nekk tout rancunier xaw a waaw rancunier mooy lan waaw rancunier mooy merkat yooyu rek xaw mer rek lan waaw mer waaw euh, looy mer waaw genre mécontent yooyu rek looy mécontent ah peut-être si millions yi ngay dégg te amoo ci bu man ah waaw Aïssatou Diop mm. def ngeen man fi ma jaar ña coalition alternance de dib 2000 mm. ña fal ña fal Ablaye Wade mm-hmm. kenn gënu moo caa liggéey dëgg la ma ànd ak moom 6 mois gis muy def la raw li waa parti socialiste daan def ma def kii ne a partir de ce maintenant je rompe avec l'alternance bu ma bëggoon a naa def noonu. déedéet ah déedéet. mii ñëw. bañ ko daan doon wote samay réserve wax naa ko ci moom. waaye buñ ko woteelee danaa ko jàppale. lii mu wax bu ko defee naa ko dimbali. quatre premier mois mu def vingt cinq minutes yi mu waxoon. Mhm. nangam nangam cinq six mois. mu dem ca mbaaxam. j'ai fait la même chose j'ai dit je romps ànduma ak ñoom. Mhm. man kuy ci ni ñuy doxale réew mi lay apprécier nit. d'accord d'accord nga. d'accord naa loolu moom na leer nañ. naa yow waaw bon man aw ma ku may mere aw ma ku may mere. bu ma bëggoon xaalis ma toog of nag. waaw déglu li ma la gis nga la ma fa doon jëlee. Mm. boo ko comparé ak sama pension enseignant su bon yi. de Italie. waaye téyewuma fa man xaalis jàpp ma. Mm-hmm. xaalis. sama ngor gi moo a gënal a d' accord d' accord naa tonton. léegi te affaire kii hmm. boo déggati wax affaire konku. sonko waaw a ah, non kooku moom ay caaxaan la. waaw kooku moom naa lay plaider. laa leen wax leen nag. waaw je garçon sur am naa ci droit je compte c' est un. am nga ci droit yaa tey léegi. il ans en 2024. waaw bu fii mu. bu jàddu fi mu la waaw waaw bu jàddul bu feeg jàddu fa waaw jusqu'à produit kono nii mu continuer su ko mille waaw 2024 hmm. je le supporterai à 100 pour cent ah bon ah oui jàddul nii mu ne ah. mais c'est extraordinaire ay ah, tonton gëm nga mais du question gëm hmm. xam doxalin lay gëm nit hmm. damay gëm nit ci wax Macky Sall bu doxaloon yoon. waaw maa nag moom. waaw Abdoulaye Wade bu doxaloon yoon man nag moom. mais Sonko contre mu contre mu Wade xam nga may contre. doxalin